benn bis bu ma sa jóg ngir intérêt personnel amut te lees ko teg mu muñ ko te du jàmb te du salit daa gisay bant bu di sànni gisoo benn talib bu lay taxaw nga muñ loola lépp ci doxinu biir ak doxinu biti mën a delloo sa bopp yàlla mën a joxaat sa borom borom lépp ci bëgg a ñu di la maaj ko la taxaw foofee fa maa yomba ci wéetam googee mu doon wét li rabbin xafuurin xat maxaan yeddan ba nga xam ne yàlla far na ci ay bakkaaram tàggale koog lépp mu wéet ci béréb boobu doyoon na rek ci histoire bu ñu nee ci réew mii am na ku ñuy tudde Ahmadou Bamba tubaab yi mas nañoo buddi ay bantam ca Gabon sànni ko tuur fa ndox di ko reetaan ak di ko ŋëññë hmm. au lieu que mu mer naqar wam ci am ca xolom mooy génn ca béréb ba dellu ci yàlla loolu ku dib julli te wax ashhadu an laa ilaaha illallaah war ngaa xam ne kii li ko diine jaral ni mel. billaahi jàppal bu la lislaam ñoree laa wax. wallaahi xam nga nag bu la leneen joree mm-hmm. te kat gis nga bu sëñ Tuubaa dëkkoon feneen dañ koy accepté ay biis la ñuy jëlee ki kaar di dem fam ne naan moo gàcceel tubaab bi moo leen toroxal waaye sëriñ bi ci boppam. بأن نارم قال نادنا يا من يحاول الشيخ إن له شأنا يفوت ولا إدراك من بعد فغيب غير خوي بتيه أو بتيه بلكو قام دملة بوكو سك سكاد من فم دار كنا نقاري خو يكفيك منها رجوع على خير حال بعد ما ركب البحر بو خمر تمام بين خرب أخدوه إن دم تيجي جدي لسوان نكوا فم نفلاي فوفو تيج ما يوم با أم نفبيس بو خم نهنا تيج نيجو تبابيه lal yam ca kaw lal ya la doon julle ndax tour gun tour sobe foofu bam fess fees nee na am bis bok dañ ko duggal ci magasin boole tuba bi goor yak yu jigen ñe ya. ñay naan di naan ñay tok diko ko mu ne cial muñ ñu ne ko ah, ndax metti na la mu ne ah déedéet kenn ku ne ci ñun mu la ñaari malaaka ngi sey mag limay lor nga lor malaaka yi ginaaw malaaka yaa koy muñ nako muñ xol fu mu yegal ak muñam foofu maa yombal la toog ba yàgg ne xel mi xalam ne yàgg naa fi ndax julumeel di daa bari ne ca saa si suñu borom daa sotti sama jëmm ji melantaan ba fees del ndax jëmmi xalaat gi ma xalaat loolu ne ma tàmbali tuub ñu gën a bari ma naa sant bisu kero laa jaay njàmbat jënd ko sant naa saxtu bi sukkuri shikaaya kero laa bàyyi lépp luy njàmbat jënd ko cant jëme sama borom ablay Salim al-Hanbali nee na nam lun ka misir riqaabil juuf fi adal su melantaan bu ci nekk toll na ni ceeju ginaar sam jëmm jëmmam fees del mu ne ca béréb boobu te du fayantoo te du dellu ginnaaw foofee mu nekk ca Mayumba di fa wéet toog na fa bis boo xam ne dafa buur na mu ndawal gis ko jafe ko lool poti jardin yii la jël mus ko ne ba noppee raxasoo suuf raxasoo saabu nag cas xalima kàddu yàlla gi dara ci kawam na ko am na ci loolu lor yonent yi ne ko rek laa jaay jën wu mag ak jën wu ndaw musutu ko ci àdduna mboolem mu baaxaat yi ko lew da koo jaay te lu gën a metti buy ñëw bu natt dee ñëw nee na yonent bi danaa am suba nangam may am loolu rek la may wax suba dal dana la def nangam foofu rek la yonent bi yam ak man motax mo cheikh isa jenn nako mo ma masa sama buntu ba ca gabon mo ma sa ubi sama buntu ba ca gabon mm-hmm. gis na sarani sol sen bubi kek yi ak li capp capp yi xamna ni ci fitna rek la yendu xamna ni ci fitna la yendu bu ma sa ubi yam ci ñom rek xamna ci fitna la yendu allahu akbar waye du du du salit oh. du du du delu ginaaw du daw mm-hmm. gëm gi ci xol bi du raf wasixtu bi rabbil arsi abdan lahu bihi wa ma saala qalbi bi ridaasa taqayudi buy jog yi dégg ay rab di ko jam yàlla danaan ko li gën a néew ci ndaw boo ko defee ma xàcc us rek ma xàcc waaye ne xol bi dama naan ko bakk ci ngërëmul yàlla sama xol bii du dañ ci ngërëmul yàlla wasixtu bi rabbil arsi abdan saala qalbi biir moo sa taqayyudi dama daan ko pakk ci ngërëmul yàlla lu xol bi dëgër dëgër lu mu yil baj baji baj baji du ma delluwaat ginnaaw ci loola dëgër googu mu dëgër mu Cheikhul Khadim te teewul xalima gi day daw ndeg ment yi koy mar yi koy yéeg du dàq du faxas te du tee xalimaam di daw mbokk yi nga ne lu waral lii lépp mu ne rasulullah yow ngay dem màkk ngay dem màkk di siyaare ji yonent bi di wax ashhadu an laa ilaaha anna muhammadu rasulullah te mënuloo supporter sëñ Touba Oustaz Modou kooku nuñ koy tuddee xanaa lu waay soxor soxor war naa yéene sëñ yonente bi jàmbaar ju mel ni sëñ Touba xanaa lu waay bon bon bon bon war naa yéene jàmbaar ju toll ni sëñ Touba rasulullah koo xam ne waxul ne damaa ñu woote dara waxul ne sama bopp dara yonente bi alayhi salaatu salaam rek la ne dan te natt yëpp lépp yëpp liggéey la yonent bi alayhi salaam rek la ko def amul benn mbir boo xam ne tax na mu jóg baa mu tax mu bëgg ko loolu jëm ci alayhi salaatu wa salaam. gërële gërële yonent boobu la jël jox ko boppam. ba egg ci wax ne sama sama dammi fidaaun li xuruji dammi wa maradi fidaaun li daa i jasadi dereti rasulaay bu waroon a tuuru na sama tere deret tuuru ba jeex bu waree wopp naa ko woppal man hmm. wax nga ko léegi xalat yow ma sab saamina li xidmatil muxtaar benn preuve rek la am mooy li ma tax a jóg mooy liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo tax Cheikh Sidi dafa waxoon ne te dana ñëw ci shahada yi li gën a yéeme ci Serigne Touba mooy watt gu ko yàlla watt ba mu dem ba dellu si te jëful lu ñaaw lu ñuy seeli di ko nettali histoire mën ko wax ba gàcce di am xaadimu rasul tey la tey la noonu lislaam gën a bari tey la yàqkat yi gën a bari waaye mënuñu koo gàkkal benn tas mënu la am juróom-ñaari ati géej googu gis nga keroog bi mu jógee Mayomba. Uh-huh. ñu ngi ko yóbbu fu ñuy wax lembar na limbar na sëñ Touba nee na lu dul ruugu génn ci yaram daj naa ko. lim ci ci ci Gabon Mayomba la def juróomi at ñaari ati limbar na nee na mi na googu de. Uh-huh. lu dul ruugu génn ci aw yaram daj naa ko. loo xalaat am na bis boo xam ne sëñ Modou Khari Bousso ci mag ñi la bokk sëñ Massamba Faté ko jur sëriñ Bousso bee ko jur sëñ bee ko nettali fukki nett leeg ñeent nee na ko am na bis boo xam ne. tubaab bi dafa indi ab dafa jël gaynde dugal ko fi béréb xiifal ko ba noppi ñëw na ma kaa ñu dem ma tàbbal la ca néeg bee gaynde gi nekk nga mus mettitu de tey jii ngay xam nan ngay mose mettitu de pour pour gaynde la ko boole gaynde gaynde gii ci ndar bukk la ga ca gabon na ko kaay tey jii ma tàbbale ci néeg bii nga mos mos mettitu dee ngir lan loo xalaat ne bu ñu xëyee melokaan si ñu xam ne lu ñu dagan nee na am na si yoo xam ne benn tubaab dafa ñëw taxaw rek tiim tiim ko yor jees di ko wëleel ci bopp sëñ bi na ko moytu ma sama maama daan rey wàllu sëñ bi nee ma sëpp xalima nga ci daaj na ko doo sa maam lu ma ñu sa maam daan rey mais bi ma ko wëccaxee muy lox di lox ba jees ñi putt wadd ci melokaan wu nekk mhm. ci Gabon sëñ Tuubaa ñaar téeméeri nattu ak juróom-ñett fukk ak juróom la ko tubaab yi teg te nattu yëpp contrat la boo xam ne da koo signé benn bu mu ciy dellu ginnaaw amul yokkat du am metti na du am fu ma jëm du am kañ lay jeex du am bu ma yëgoon du am xel mi képp du xalam dara keroog mbir gën a diis la gën a jëm ci borom bi subhaanahu wa taala ba keroog bi ñu koy di ko sànni ci wiir wiir a bokk yi wiir wiir ku la fa sànni ba nopp nga ne waman yulqi nii fil bahr raw man li xurbati fa lii mii ilaahi raw du fi ku la aylam ki ma sànni ca géej ga jublu na damaa tumuranki moo ma gën a jegeloo yàlla borom bi subhaanahu wa kon yàlla rek la dëgmal. xam nga sëñ Touba. ni nga nangule Moussa xam na bi yonent la. Mhm. nangu Xiisa na bi yonent la. te koo ca weddi sa gëm du mat ndax daa bokk ci ñi nga war a gëm waaye yonent bi jiitu sallallahu alayhi wa sallam. Mhm. nit ñi tolloowuñu nit ñi ni leen yàlla bind ci ay catégorie sax tolloowuñu nuroowuñu bokkuñu capacité yi dara bokkul jëmmi sëñ bi moom. dafa am uur bopp dañ ko caaw wala yëlëb ba mu set teg ko nee mm-hmm. nattal xam-xamam nattal lim tagg yonent bi nattal lim ko jaral léegi boo nee diw bëgg na yonent bi diw tagg na yonent bi sëñ bi taggul ko ëpp ba noppi taggi ko foofu ko kenn tëggewul wax dëgg yàlla xalima goo xam ne boo koy bind yi lay matt ngi lay matt te doo dàq doo faxas xalima goo xam ne boo koy bind am na bis boo xam ne nee na damaa damaa jëm ci tubaab bi mm-hmm. ndax dañ dañ ko joon ragal ne ba ma jëmee ca ñoom tubaab bi tiit ñu ne ko sëñ baa ngi ñëw mu ne déedéet koo xam ne dañuy sàkk ci moom mu ñëw nunguwu ko tey mu ñëwal boppam bi mu ñëwee na jàkk rek tubaab bi xool xool loo bëgg sëñ bi na teg ba yàgg sëñ bi ne ko euh, na ma wutal lu mel ni daa ba mu ko ko ba noppi sëñ bi dem ba toog daan na ma leen di bàyyee ba noppi bëgg seen yëf gas kam ba mu xóot sotti ca daa ji moom képp moo taxaw na katabtu fil bahr anni laa amuddu yi إلى نصارى عبد الماء والتين يدي لمخد كريم نافع زمد لا لدراهم تأتي من سليطين سنتو بانيكو فمبكي بري نان منوم لم نفا مبكي باول نان منوم لم نفا ندار نان منوم لم دم تي گيد دلو گيناو man yàllaay buur jim leen doon wax rasul lay lay liggéey li jim leen wax luñ gën a wéet loolu la leen di woon te la muy metti metti nee na fa ba jóge fa kenn du la leen bis bu mu tiim baa bu mu faat waxtu mooy wutali boppam ndox mooy jàppal boppam bu nodd jotee mooy nodd ca kaw tubaab yi ne ci seen i maaj muy nodd ca kaw di noddal boppam bu ñuy maaj muy taxawal faratay boromam oh. di julli waxtu boromam bërki démb damay wax Cheikh Ahmadou Mbacké Kara Nouréyni mu ne ma xanaa xamoo li gën a yéeme mooy tubaab yi li ñuy saay saay saay saay saay da ci am ñu bëggoon sëñ bi am ñu ko noonu waaye ñi ko war a contrôler waxtu julli dañ koy maanaam duñ xam luñ duñ ko duñ ñëw sëñ dañ koy fàtte maanaam tey bu ne tisbaar war naa jot dañuy mel ni dañoo fàtte waxtu woo ba sëñ bi def li muy def ci waxtu woo ñëw ndax borom bi da koy aar kon lépp ay coono la ay liggéey la te jëmm yàlla rek a tax mu doon ko def kon ku am ku mel noonu ci ci ci am réew am ku mel noonu ci àdduna man koo yóbbu fu ne la sëñ Abdourahman Bakkim Cheikh Abdou Khoudous waxoon bi hiinu baaxil bii de kullu asiya wa bi doxaa bi xawlin saadixil maodu mën nañ ko puukaree fu ne benn bu ne tegal fu la neex mën nga ko fa publié kon loolu jëf la joo xam ne ku la gis ne ko waaw koo xam